Hmm? am na ñu di yoon lii kër jàmbur lii lii lii xam yoon kilifa gi wax rek waaw waaw waaw bu doon ñun ak ñun rek waaw gi ñëw na ñun amul xabru baa ngi nii voilà kilifa baax na waaw xabru waaw comprendre naa bu doon njaboot ak njaboot rek ñun ñoo ko jël ma waaw man kay dinaa la jël kay dinaa la jël kay dinaa la jël kay dinaa jël xabru bi bi yëpp jël jël ñu ñun ñëpp tout jël ñu ñun ñëpp jël ñun ñu sax dañ leen jël yen jëlal bu la neex bu doon njaboot ak njaboot ñu jël ñu tam daan leen jël bu doon njaboot ak njaboot rek waaw jël leen ñu daan leen jël daan jël daan jël xabru xabru baa ngi nii nii nii nii nii nii wallahi sëñ Moustapha digalewul lii digalewul lii dañ dañ koy dindi lii day dañ moom incha allah day dañ lii du taxaw sax lii du taxaw sax du taxaw du taxaw ñu ngi nii bunt bunt bi ñu dagga ngi bi ñu dagga ngi nii waaw waaw jaaduwul nañ ko démb xam ko tey. waaw mhm. lii sëñ ko. Mhm. ma foog moom. waaw tooñuwul tooñuwul. Mhm. lu nekk dafa am yoon. waaw. ñunu neen la suñu biir alaaj Maalik benn jëmm la ñun te xaw ma nag kan la ñuy sëkk waaye kenn du sëkk njabootu bay Abdoulaye Dabakh te ay yoon te wax naa ko man mii même bâche bi na dañ lii nii ci kër gi la bokk bâche bële na le ñoom ñoo ko fat bañ ko fe jaar fat bunt bii mooy li ma doon wax démb même même même miir bële ne la ñoo ko tabax tabaxu bees ñoo ko daan tabax miir bële ngay gis ne la tabaxu bees la ma nga ne la non dafa daan